selon vous yéen fi ngeen bokk wala ñi ngeen àndal libérez les journalistes aujourd'hui le peuple est incarcéré encastré parce que li mu war a jot ci information jotu ko wala ni mu ko war a jotee joteewu ko noonu parce que l'info quand elle est sincère ça pousse à deux choses soit la population applaudit wala la population se fâche maintenant pour bañ population bi mer on préfère diluer l'info les patrons de presse la ñuy wax yi nekk Sénégal bàyyi leen seen journalistes yi ñu liggéey gis nañ manifestation ba amee yenn chaîne yi di teg ay clip est-ce que loolu engagement journalisme la. grand en 2011. en 2011. 2008 le président Macky Sall nekk assemblée nationale ñu jëlee ko fa. ci lu tegul si yoon. ñu nag suñuy morom ni ñu kaa waxee nii lañ ko doon dénoncé. 2009 ñu woo ko commissariat central pour blanchiment ni ñu kaa waxee nii lañ ko doon dénoncé. est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un de l'APR wala quelqu'un ci ñoom war na mën a xool benn Pape Alé Niang reprocher que ce qu'il est en train de faire c'est désuet et malhonnête c'est valable pour ñun c'est valable pour keneen ak ñeneen mais comment ça se fait que ñu nekkat 2022 en pire ñuy dund loolu ba pare cette presse mel ni newu fi parce que yaa ngi wax ñii teg clip ñiy teg mbalax et cetera c'est vrai de le de le poser mais ñooñu en 2010 2011 ñoo doon def ay générique ak ay direct léegi nag population sénégalaise yi ñoo war a comprendre fan la dëgg bi féete te dëgg bi fi mu féete weesul fenn furul fi nit ñi toll jamono bi mooy un régime un pouvoir bu nga xam ne mu ngay def lu ko neex et puis sans gêne xam nga léeg-léeg sax nga ne ak ah, gars yi am na lu ñuy nëbb mais sans gêne sans gêne et et et c'est pas possible. d'accord dernière question pour ma part gis nañu benn militant boo xamante ni nee na Benno Bokk Yaakaar la nekk di menacer attentat benn organe de presse lan la mais jàngat bi mooy yéen ñëpp ñun ñëpp dangeen war a xëy à la une yéen ñëpp bind turu kooku wax ne dafa def dafay proposer attentat contre Walfadjri c'est-à-dire que toute la presse grand il faut que aujourd'hui ñun ñëpp la presse sénégalaise qu'on arrête de poser des questions il faut commenter il faut écrire il faut analyser il faut tirer sur ce qui se passe c'est pas normal il faut le dire au-delà des questions loolu ala yëfi dof xulil ala wax que la presse arrête de poser que ñun ñëpp xam nañ li fi xew te li fi xew ok voilà. waaw lu dul yàlla neen la ñun waa Guédiawaye ñu ngi ànd ak dal ànd ak muñ te xam ne nattu la rek yàlla ñu ko teg yàlla mi ñu ko teg rek dinañu ko teggil ñu ngi ànd yàlla ànd ak yonent bi waaw. Macky Sall nag xaaruñu ko woon fii ñun waa Guédiawaye xaaruñu ko woon fii waaw xaaruñu ko fii nag bett nañu bett nañu. waaw mag ah, ah, ah, Ahmed doomu géejawaay la fii la juddoo fii la yaroo fii la màggee waaw bëgg waa géejawaay nag rakkam bi bu fi jógee nag waa géejawaay ñoo xool ba mu neexatule ñu génne ko fi jël doomu géej waay teg ko fi kon Macky Sall dafa war a nangu ndogal li ndogalu yàlla la waaw ndogalu yàlla la yàlla mooy fal njiit yàlla mooy folli njiit waaw dañu ñaan yàlla nag lii moom na doon suñu njiglaay waaw métti na suñu xol bi nag suñu xol la laal waa Géejawaay seen xol la laal suñu xol la jeex waaye dañ koy baale kii kii moo yor lépp kii yor lépp nag nañu fajal lépp waaw nañu mbokk yi ni ngeen ko gisee ah, ba tey ñi ngi buntu tribunal bu Géejawaay ñi ngi buntu tribunal bu Géejawaay mbokk yi Ahmed Aïdara xam ngeen ne audience am bi la woon mais li ñu jotagun ci information mooy dañ koo renvoyé. bu fekkee loolu am na nag moo tax euh, partisans yi ak militants mi macha allah amuñu lu leen neex waaw ñi ngi ñi ñaxtu comme nit ku nekk rek ak sa mbokk mbaa sa dëkkandoo mbaa sa xarit mbaa sa liggéeyandoo soxna si naa def. maa ngi fi rek. yaa ngi ci jàmm maa ngi ci bu baax. lan moo nekkoon teewaay bi. waaw teewaay bi mooy suñu monsieur le maire mi ñu jàpp rek téye ko fii rek bëgguñoo noot ñun waa Géejawaay dañoo xeex lii waa Géejawaay ñoo fal Ameth ñoom faluñu parce que dañ doon wax Ameth du fi falu te yàlla moo ko fal ak waa Géejawaay ñun ñu ko gëm di ànd ak moom depuis 2015 ba tey waa yaakaar rek yàlla la yaakaar ñi ñuy def lañ war a bàyyi waa monsieur le maire moom incha allah day nekk député maire waaw day nekk député maire incha allah kenn mënu ci dara. lëkkasiwuñu ak Macky Sall Ama Baldé jënd par aw ba lu ñu de quoi lañ jàppee Ahmed Aidara si au nom de quoi lañ koy jugé de ma wax ne si lii la koy jugé bu na ma wax la ñu dee par force voilà liberté d'expression par force libérer Ahmed Aidara par force libérer Mame Diarra Fam par force Déthié Fall par force Guy Marius Sagna par force man duma ma bàyyi xorom du ma bàyyi saaga te xoolal fi mu toll nii yéen jeunesse bi laay waxal kilifa diine yëpp a ngi seen i climatiseur toog dégg ngeen li ma leen wax yéen a leen i waate ah man waateetuma benn kilifa diine bu dul Serigne Touba mala maam El Hadj Malick keneen ku doon sama yoon ci yow parce que ñoom seen yoon nekkul ci ñun bu ñu génnoon ñoom dajaloo wax Macky Sall liñ ko war a wax kon ba tey coow li jeex na. barke Mohamed daf leen loolu nañu génn xoolal Macky Sall dafa am conseil des ministres pourquoi le conseil des xalif général parce que respecté wu leen respecté wu leen léegi nag amuñu benn respect pour moom mais dinañu respecter suñu administration parce que administration bi fii samay rakk a ngi fi taxaw samay doom a ngi fi taxaw samay doomu nijaay du ma nangu ñu laal leen comme ni may bañee ñu laal leen yéen yaa ngi dégg parce que Macky Sall 15 mois mu abal ñu ak administration ak ay ay pas administration mais ak ay ay ay ay général am ak ay commissaire am ñëpp dañuy abal par force par force parce que dëkk bi ñun ñoo ko moom. mais bu leen nangoo ti di xeex ak police parce que wane ngeen seen doole te ni ngeen ko wanee mercredi bi passé xoolal Joe Biden Joe Biden président United States of America dafa ne dafa woo ay conseil am ne leen lan moo xew Sénégal ñun loolu la ñu bëggoon. loolu la ñu bëggoon information bu jàll information bi tas na fépp li muy bañ nag day am par force quinze mois moo ko fi dese ak ay fan par force dinañ la dëjjate yow Macky Sall yaak sa njaboot kenn mënu ci dara merci. mooy toroxal Ahmed Aïdara ndax Ahmed Aïdara da koo da koo da koo da koo da koo battre sauvagement ndax Ahmed Aïdara l'a battu impitoyablement dans tous les centres de vote dans tous les bureaux de vote fii ci Guédiawaye loolu nag moo ko naqari li ko naqari ba léegi xam nañ ko waaye fii le peuple est le peuple est souverain keroog yonent yàlla Moussa bi muy daan bi muy bi muy daan Firawna mbooloo la àndal dëkk bi la àndal Sonko li mu naan casserole yi nan ko tàcc nii loolu moo fi loolu lu yàgg la de loolu jamonoy Firawna la Firawna bi ko Moussa di daan dafa jël bëy rendi ko dareet ci bëy ji la doon jël di tàpp ci buntu kër yi di tàpp ci dëkk bi di tàpp ci kër yi ba benn moment yàlla ci boppam ne leen daw leen bi mu dawee ba na topp leen ci la yàlla def ay pexeem ba Firawna ñàkk nguuram nguur nag dafa am deux nguur nguuru suñu borom ak nguuru saytaane nguuru seytaane nguuru Macky Sall la nguuru Macky Sall nguuru saytaane la te nguuram gi par rapport dans quatorze mois yàlla dafa effacé je vous remercie boobu rek la defa ah. mooy devoir gagner le frère du président Macky Sall te loolu bu doon à refaire la dañ koy defaat Ahmed Aïdara moom buñ ko tëjoon ba élection yi wees ñun dañuy gagné waat Alioune Sall Guédiawaye bi 1962 grand lañ ko créé depuis boobu géej Guédiawaye mu ngi doog am un digne bu juddoo fi yeewoo fi bu nekk maire grand Abla euh, président Abdou Diouf dañoo indi woon Serif Mbacké Sall Serif Mbacké Sall gaañu Ablaye Wade indi ñu Bokar Sadiq Kane jëlee ko Maris Bokar Sadiq Kane gaañu grand ñun ñu ñëw depuis boobu Guédiawaye 1962 ba léegi amul un digne fils bu géej géejawaay bu nekk maire de géejawaay c'est la première fois ci te ci Ahmed Aïdara la ko yàlla dogalee te loolu nag dañ ko liggéey durant sept ans le mouvement Zelbe di sillonné géejawaay gars yi jàppee ñu ñii nga tekkuñ dara ñii ay wax lañ ñun nag ñoo leen gagné te bu doon lu ñuy defaale élection député waat suba ñu gagné waale toor boobu nag la Macky te mënut a telooree Ahmed dara mooy lu ma gagné euh, Alioune Sall te ku dul Alioune Sall su fii dañ koy gagné man nag li ma bëgg a wax Macky Sall mooy ce peuple appartient aux Sénégalais Ce peuple appartient aux Sénégalais. Ce peuple n'appartient pas à Macky Sall. Ce peuple appartient aux Sénégalais. Depuis l'histoire Sénégal ci ngay dégg fii un faux billet un député buy defar faux billet te loolu mu nit këram député buy defar faux billet fii nga gis ci nguuru Macky buy jaay passeport diplomate ci nguuru Macky Sall ay góor jigéen ci nguuru Macky Sall ay DG yuy détourné xaalis un député bu ñuy fekk sa ay 890 millions ci ci réew Macky mais ñooñu xanaa réew mi ku am ndey a jàpp dafa doon liggéey ñi ñu war a jàpp mooy ñi nga xamante ne ñoo sàcc ñu xaalis réew mi un député ñu fekk la ay 890 millions sa kër ngay tëdd di nelaw man nag li may lancé maa koy lancé waale sama xeet ñun askanu tukulóor yi ñun grand bépp cër Macky Sall ñun askanu tukulóor defal nañu ko mais ñun gis nañu suñu bopp gis nga grand Fouta Tampi ñun xoolal dañoo dee ñun ay tukulóor la gis nga maa ngi wax sama mbokk tukulóor yi gis nga nett so allah balluɗoma accaɗum enen macky sall wallani en enen macky sall tiiɗani en gala suuru gueji wayi ni manque de wa gueji wayi manque de reso wa gueji ñun la wa gueji wayi am na fu ñu koy am na fu ñu xaar de parce que yëpp affaire de doole lay jaay mais doole yàlla dong ko yaayoo moo ko yor kon nañu respecté bàyyi monsieur le maire mu dem ñibbi liggéey liggéeyam ñun waa gueji wayi dañ ko soxla ñoo ko soxla pour mu ñu le 27 li ñu fas yéene mobiliser waat comme ni ñu def te nag dina am loo xamante ne nag bu ci jëmee du baax ay xale lañ am nañ toole mun nañoo taal mun nañoo toj mais Guédiawaye ñoo ko moom ñu ngi yàq moo ko defaral kon nañ ñu respecté nit ñi non non man man man man man li nga fi dool nii xam lu ma intéressé sunu maire bi lu ko génnee Sonko Yewwi Askan la bokk def na rôle am ñëw na taxawal ko dama ne na respecté waa Guédiawaye nañ ko na respecté Macky Sall dañ fal fal direct fal amet direct ay carte ko fal ñun ñoo ko fal de kenn falu ko ñun waa Guédiawaye géejawaay gépp tey fii dafa waroon fees dell dell dell ndax Amet kenn ku jariñ na la géejawaay ku fi yeewoo Amet jariñ na la encore une fois géejawaay ku fi yeewoo Amet jariñ na la kon géejawaay fii de dafa waroon fees dell mais ay renvoi yëpp dañ ko bëgg a xooxatal waaye barki maam Cheikh Fall Amet mënuñu ko xooxatal Amet gaynde la kenn mënu ko xooxatal li ñu ko def nii dañ bu génnee li gën a pire lay def man maa la ko man. comme seen ligne éditoriale lañ topp seen ligne éditoriale mooy éliminer ñi nga xamante ne nii ñoo. ñoom la askan wi fas yéenee tànn ci élection législative yi affaire yi dépassé na sax ay mairie ndax mairie bi jox nañ ko monsieur le maire Ahmed Aïdara ba pare mais lim nekk candidat de la ville de Guédiawaye nekk tête de liste départemental loolu moo tax ñu bëgg ko bundu xatal teg ci kawam loo xamante ne nii dina tax askanu Guédiawaye bañ ko tànn te loolu du dëkk du yoon dëkk dañ ko war a teg ci yoon dëkk nekkul ñi ko jiite dañ koy jiitee nu leen neex